ñoo ñëw booba la ñuy julli sax sàmbe jëmbal ndax yëpp xam naa ne yàgg nga ko bëgg waaye doo ko bëgg a liggéey ndax boo ko liggéey itam te sa jot du ko maye du dëppoog la ngay bëgg ndax wax mu doxulee doon ci la ñuy wax ne maa ngi ñëw yoon bi de xas na dinaa guddee ma ne ko yëg bi ñu yëg ne yaa ngi ñëw rek tàmbali nañ ci jàng ba nga yëg de feeñ na ci itam kon daal loo ñu gën a mën a may ci sa teewaay ci suñu jotaay ñoom koy gën a bëggee lool te xam ne sayba ñëpp rek ak teew sayba ba ñu waxee ne war naa fa waxtaan nga tàmbali di wax naan bàyyi maa ngi wax ak yow bàyyi yaa ma ne maa la ne bàyyi yaa ma ne maa la ne ñu naan war naa fa wax lu may wax maa nga toog déglu buñ ma la waxee xool sax ma sëggaat ndax léegi tey ñu naan ma jogal wax waaw jogal wax nga wax ci bàyyi dégg naa diw ne diw ne bàyyi nee na ak dégg naa bàyyi nee na wala bàyyi nee na ma benn waay kon nag bu suma Cheikh Ibrahima mu jóg mbooloo maa ngi dëgg dëgg bëgg nañ la waaye bëgg nga leen ndax lii nga ñuy jagleel la muy tekki mooy bëggin bu dëggu waaye ñoo ngi lay fàttali ba tey it ne bis bañ la jagleel ca tëngéej ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bii defoon nañ ko daaw yaa ko waxtaanoon ñu tuddee la ko mu sa bés la ñoo ngi koy waajala ren sa bés la nam doonee woon sa bés ziyaare fi woon nañ la ñaanoon la ne la bëgg nañ jagleel la ziyaare bi ak mu nekk ñu jox la ko te ñoo ngi ñaan mu yaatu itam nga def ko sa buntu kër wala sa buntu bureau wala fu la neex ci Ndakaaru de xooleem say soppe yi biir réew ak bitim réew ba ñu xam ne say baax ma xam ne jóg yeeyoo na ak gis ndax loola ci sax xëy na yow lay jëriñ dayoo jëriñ waaye nit ñi lay jëriñ te nag gënanteeg nit ñi mu ngi ci baax mën a baax le jëriñu mën a jëriñe moo ko dañ nag di baax di baax le di jëriñe di jëriñe waaye dañoo bëgg mu gën a yaatu nag ci lu mel noonu nga wuyu ñi mbooloo maa ngi daal loo bëgg ci biir bëccëg waxal ñoo ngi ànd ak yow ci lépp ndax nañ tëjee jotaay yi nag ñetti salaatul faatiha yi ak yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko defaat mu nekk xadee yonent bi daf tawasul ci yonent bi mu nekk fan wu guddi ci moom yokku xam-xam yokku leeru xam-xam barkeeb bi mu jàllale te yàlla def ko muy leeru dégit ci ñun ak barkeeb mën a jàllale xam-xam bi ci ñun ak ñeneen allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatima
jël ay jaam di ko mel ni ku koy jëmbat ci ñoom gannaaw ba nga leen raxasee raxas leen ci biir xaqiqatan ci ruuxu ba luy takk takk lu gërëm lawul yàlla taxu ruux ba ruuxu set wet nga eggale loolu ci xol di ànd ak ñoom ci xel di ànd ak ñoom ci xelaat ba far lépp set wecc noppeetloo comme ni nga ko waxee ak xixat dama doon wax bëgg wax ne léegi dafa mel ni fànnaaw ak bàqaaw jël tool ruuj ko setal ko defar ko ba nga mën saa denc gàncax nga ñël jël na gàncax gi di ko ci jëmbat par benn benn muy sax saxin bu rafet ba ñun ñu siy sant yàlla ba ku ñu jokkool wala ku ñu àndal wala ku ñu jaxasool nga yëg ko si ñun bëgg si ñun yàlla bëgg si ñun mbax googu bëgg si ñun Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ko da bëgg si ñun Baye dama ne ànd ak mu nekk ku xam ne si liggéey boobu li mu koy def li muy rafet rafet rafet rafet bu gisee ñu ko man ñu ko mën a taxawe ñu mel ni yow mu daldi ci sawar oowaat ñu fi ubbil ñu fi xam ne nii dëgg-dëgg fa lay ñuy denc mbaax googu ba muy mën a jariñ doomu aadama yi ci xoolinam dëgginam ci waxinam ci jëfinam mu ubbi ñu comme na mu ko ubbee gis nga toujours na muy ubbee bu dajeeg ñu mag ñu mel ni yow man noonu laa ko gis toujours damay wax ne xoolal Cheikh Ibrahima mu ngi ñuy ubbi waatal fi muy denc li mu bëgg ñu denc denc li mu bëgg li mu bëgg mu jariñ ñu daf koy ubbi ubbi ndax màggal ba muy màggal ñu màgg ñooñu ngeen nekk yéen ak ubbi la bu mu ñuy ubbi pour ngeen mën ci sërëxal li xam ne nii kat moom la namoon ci ñun ma gis tamit ak yaatu ak mbaax it ndax loolu tamit bu ñu xoolee addis yi nga doon jàngale léegi loolu tamit melokaan la ci jottali melokaan la ci jottali xam-xam ndax ni mu ko waxee dégg am na waaye léegi day gis ñu am ak dégg nga fexe indi leen ci sa tool ñu defaraat la dégg yi loolu tamit dama ne màndarga ku màgg la yàlla nañ ko yàlla jàppaleel yàlla nañ ko yàlla dëgëral yàlla na yàlla guddal fanam moom ak xeetam ak njabootam ak soppeem ak ak képp ku xam ni ndax dana taseeg moom dana koy bëgg dama bëggoon a wax ne si li baaxaam ku baax nga ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm man nag sant ni ma ko déggee ci xam-xam bu néew dajeeg ñu mel ni yow nii xam ne ñi dëgg-dëgg yéen a xam denc yàlla yi nag wala boog yéen a mën a jotale suñuy bët sa yooya góor yàlla yi xam ni suñ si suñuy bët jotul suñuy bët day des day des ci suñu jëmm ji te dañuy daal di xat ngeen eggale suñuy gis sa denc yooyu ba ñu mën a gis ak xatan wala boog zaa'iran tamit li xam ne bii mooy ay xat-xat yi xam ne ñooñu xatal ba tax ñu xat sañu bopp ba tax ñu xat ci suñu ay diggante ba tax ñu xat ci suñu ay kër ba tax ñu xat ci ay mbedd yi ma ne dajeeg ñooñu te yëg ko gis ko defe naa xanaa moo tax ñu wax la in shakartum la azidannakum kon nag ci noonu te mooy buntu dolleeku ndax yëg ga ñuy yëg ne kii kat njariñ la daw ga ñuy daw jublu ko takkoo ga ñuy takkoog moom ubbeeku gu ñuy ubbeeku jox ko suñu bopp moo tax yàlla ne dolli ko ci topp doon kat yéen kat yéen a ñuy dolli yaa ngi ñuy yaa ngi ñuy jariñ xoolal tey rek li yàlla di dogal tey maa ngi yendu ci benn cérémonie bu xam ne Mbaye Thiam mu ma ci invité woon muy commandant génie bu bari muy la Sainte Barbe xam nga mooy seen fête nationale du génie waaye bi ñu fa dajee ñu ngi fa daje woon ak mbokki taalibe yu bare ci pays bi yu mu fa invité woon waxtaan way yëpp nag comme gis nañ ma te xam nañ ne taalibe Cheikh Ibrahima la ñu ngi wax di rafetlu liggéey bu rafet bi Cheikh Ibrahima may liggéey ndekete ñoom ñu ngi suivre tout ce qui se passe ci si xadra bi ba dama ne élément par élément dama waaru sax ndax dañ ma doon nett ay mbir yu xam ne man mi koy téye toujours fàtte woon naa ko ci mbir yi nekkati yooyu yëpp xam naa am na ñu xam ne ni ñoom tamit comme ni nga ko doon jàngal ci addis bi rek ay jottali kat nañu te it lu fi am ñu jottali ko nu mu gën a rafete ñooñu tamit yal na yàlla yokk seen leer ndax ñu baax nañu ñooñu tamit yal na yàlla gërëm leen te it yal na yàlla bareel ñooñu ci mbooloo mi te ñu mel nooñu yàlla yàlla def la ñuy daj àddina ndax mbaax daj àddina bi waaye bi si waxtaani si éléments yi xam ne nii wax nañu wax nañ ko si rafetaayu Cheikh Ibrahima si liggéeyam boole nañ si lu mel nii te pourtant xaw moo ne tey ku màgg ku tedd ku baax kii tey dina fi ñëw parce que dañu wax ne Cheikh Ibrahima si wax seen waxin mën naa lim sax ñu fa nekkoon ndax waa ñu la fen yi la ñu la bëgg ñu la sopp sopp Cheikh Ibrahima lool ñu ngi wax ne moom dafa baax ba bu gisee ku am ku baax si liggéey bi mu wàlli si la te ni ma ko waxee nii noonu la ko dina la yëkkati ubbi ay taalibeem ubbi leen ba ñu ubbeeku mu jox la nga jàngale mu sant la nga dem kon daal liggéey bi muy liggéey moom dëgg-dëgg te muy mbaax te mu man ko lool ñu ngi ko ci sant te it loolu tamit xanaa peut-être di la ko xam nga ko sax waaye nag comme ñun ay taalibe lañu te ñun la koy def tamit di la ñaanit tamit nga ñaanalul ñu ko ndax man damay wax toujours ne kat lii muy de liggéey nii ñun mu yem ci ñun ñii wala mu yem ci Sénégal gi tuuti na lu war a law la lu war a dem ci ñëpp la ndax kat loolu moom mooy garab yi néeg yi danaa koy faral di wax mooy garabu këy yi mooy garabu mbedd yi mooy garabu liggéey yëg liggéeyukaay yi lu jag rek looloo ko jagal damay wax ne nit dafa tënku li ko tënk mooy ñàkk xam te xam-xam dëgg-dëgg bu doon téere bi rek tamit mu daal di xaw a doy waar comme ni nga ko waxee rek ndax dafa bari ay ay cër ak ay nu ngeen yéen ñi jàng téere xam ngeen ko waaye boole ñaar yëpp lay def defar la ci biir jokkale ko defar biti bi muy taaru biir di taaru bët yi bëpp la gis bëgg la jaar sa muy bunt bu koy ubbil bëgg yàlla loolu kat mooy liggéey bi fi liggéey te it man wóor na ma ne yow yaa ngi koy jàppale ci liggéey boobu ndax gis nañu sa taxawaay ci tëngeet waaye du sa taxawaay ci tëngeet télévision yaa ngi lay kii mën naa fi nettali sax benn mbir ndax bi may dugg ci mbir yi daanaka mbokk yu bari rek dañ maa bàyyi woon waaye bi yëf yi demee ba gàmmu daaw gi ñëw ba ma koy yëgle am na si kenn ku taxaw mu naan mën nag barxam man kooku dama ko soppal sama bopp rek te si télévision rek la la gis xam nga loolu sëriñ bi man ñu sant si yàlla ñun kon nag yàlla na yàlla dooleel la yàlla na yàlla boole leen dooleel ni ko Cheikh Ibrahima waxee rek xam naa ne Cheikh Ibrahima moom njabootam gii mooy njaboot yi ñi xam ne nii dëgg-dëgg yàlla baaxal na leen ñëpp nag moom ndax it mbaax lay wutal ñëpp nag te xam naa ne it ku mu gis tamit kuy ku baax la tamit dina la ko dina la fa yóbbu nga si école am nga jàng fa ndax it nga dollee ku baax kon nag yàlla na yàlla fay leen loolu moo fi mas a nekk yàlla mooy mbaax jël mbaax dama doon wax dama doon bëgg a wax denc ko si yonent bi wala boog mu dénk ko ko en tout cas ka mu ko dencoon ci addis yi moom kooku respecté na ko denc ko jotale na fa lañ ci mën a jotale comme na nga ko waxee comme am na lu ñu ci war a denc moom en tout cas la sa war a jot dem dem na ba yaakaar naa ne ña ko waroon a dégg dégg nañ ko te tàllal nañ ko te yéen it yéen a ngi si kon damay jàpp ne la war moo nekkaat ci yéen kon nag yàlla na gën a yaatu ci yéen te yàlla yàlla gën leen a dooleel ba ngeen mën ko yaatal ba mu daj adduna bi yëpp kontaan nañu trop mënuñu ko wax ci làmmiñ en tout cas suñu jëmm yëpp nag mu ngi leen gëm te su fekkoon ne dañuy mën a liyaaf seen màggaay mën ñu ko mën ñu xam fu mu toll ci ñun yal na yàlla dooleel leen yal na yàlla dooleel leen yal na yàlla gën a barkeel seen dund yal na yàlla barkeel seen xeet yal na yàlla barkeel bërëb boo leen mës a dem ak bërëb boo leen dem ak jataay boo leen mën a nekk ñi ngeen fa nekkal yal na yàlla barkeel seen dund yal na yàlla def ku leen xool bëgg yàlla ku leen xool gëm yàlla te ku leen xool dund yàlla yal na yàlla defal leen lool ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallam rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin amoon nañ dars bu amoon solo Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop jàngal ñu ko ci sunu téere taaj bi aljaamiu lil usul fi ahadith rasul sallallahu alayhi wa sallam mu doon jàngale mu jotale ci xam-xamam bu leer bi yal na ko yàlla dolli barke ak leer alarba ji jàllaat ci taseeg ngénteel Cheikh Ahmed Tidiane Gueye ñu doon xalaat ndax dañuy jàng wala dañuy xaar mujj nañ jàngoon waaye lu ca bari woon ci mbooloo maa nga woon ci tudd ga ñoo ngi delluwaat tey ci lañ jotoon jàng keroog ndax bariwuloon bu ca xajee ñu dolliwaat ci li ci war a topp dem jotaay bi dina ko maye tey ndax sunu mbokk yi jógee feeg seen yoon wu am solo bi ñu indil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث في أداب العلم بنتب نتيل كتاقين خم خم خم خم دفع أم أي تاقين ندقلو عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري وأبو داود جلينا أنس صحابي بمك بي تصحابة ينتبي نيوم يب مك نينا ينتبي صلى الله عليه وسلم بودان وخ bu waxaan benn wax benn jumla bu waxaan benn wax benn kalima buñ ko waxee mooy wax ju mat benn baat mooy wax ju mat joo xam ne tàmbali wax ja ak daaneel wax ja xam nañ ko doon wax lu mu bëgg a wax mosul wax benn wax lu dul wax ja baamu na ko ñetti yoon ba ba ñuy déggee lam wax ndax nag ci benn jataay bi lay wax baamu ko ñetti yoon wala da koy waxaat ci yeneen jataay fekk nit ñi déggul daal mu ngi leen di jéem a dégle ndax jàngalekat la ko war a yitteel mooy ña muy jàngal nañ dégg la muy jàngale donte lu tuuti la ñu dégg ko moo gën muy lu bari te duñ dégg te yàlla daf ko yónni sallallahu alayhi wa sallam mu war a jotale ba nit ñi dégg kon lu mu daan wax dana ko baamu ñetti yoon ndax nag baamu googa ca tàmbalib xadis ya la tàmbalib ak yonentam la wala boog ca mujj la ndax ab yonent lépp lu mu def la ca mujj moo gën a mat bu fekkee daan na ñëwal itam aw nit maanaam romb ay nit di leen nuyu daan na leen nuyu di ko baam ba muy matee ñetti yoon buñ ko déggee ci yoon bu njëkk ba fay ko mu doy loo fay gu njëkk ga buñ ko déggul dana nuyowaat nuyoob ñaareel buñ ko déggul mu nuyoo nuyoob ñetteel buñ ko fayee baax na buñ ko fayul nag du ñeenteel ci la yem naka noonu ba tey bokk na ci teggiinu nit ku ñëw ci néegub waay wala kërub waay nuyu buñ la déggulee ñaareelal buñ la déggulee ñetteelal buñ la wuyulee ci ñetteel bi nag jarul jéem a sonnaat di nuyuwaat di wéyal yonent ñett la daan yem sallallahu alayhi wa sallam mun na am ñett ya xëy na dafa jàpp ba tax mënu laa fay bu la fayulee rek mooy buggu laa wax yegsil jarul jéem a gën a wéyal wala sax nga dal di far ubbi buntu ba dugg te waxu la bismillah jaru ko kon bokk na ci teggiin boo nuyoo benn yoon ñaareelal ñetteelal buñ la déggee ci bu njëkk man ak doy na léeg-léeg sax ma koy jéem a def man ci téléphone su ma sonee benn yoon mu sonee ñaar bu ñetteelee kenn wuyu ma dana ma jaral sax ma tegaat téléphone bi bàyyi ba ab jamono ma doga woote waat xaaraat yeneen ñetti yoon du ñàkk mu wuyu ma ci waaye muy sone rek di sone rek mun na am mu ngay julli mun na am mu ngay nelaw mun na am mun na am bokk na ca teggiin daal ñetteelal buñ la ci déggulee bàyyil nag sallallahu alayhi wa sallam kon nag léegi rombe aw nit dana leen nuyu ba ñetti yoon rawahul buxaari wa abu daawuda وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا رواه الشيخان batay jëlee nañ ci annas mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne di leen yombal te bu leen jëfeel di leen bégal di leen bégle te bu leen dàqe kañ la daan wax loolu bu daan yebal benn gouverneur mu jëm ci benn gox ci goxi lislaam yi mu war ko wuutu ca jottali njàngale yonent sallallahu alayhi wa sallam ca gox ba daan na leen yebee bu ngeen demee di leen yombal te bañ a jëfeel di leen bégle te bañ a dàqe yombal te bañ a jëfeel xam ngeen jàngoon ngeen ca gannaaw ñuy wax ne diina jàppandal la jafeel ba mu ëpp jafeel ba mu ëpp duy gën am na ñoo xam ne seenu njàng jafeel lool lañ gën di waaraatee jafeel ga mën naa dàq nit ba mu ragal diina sax far bu ngeen seetee ñu bari ci seen njàngale dana ci am ñoo xam ne la ñuy wax ne diina moo ko wax diina waxewu ko noonu ëppal nga ca ma joxe ci misaal rek jigéen awraam jëmmam yépp la maadal wacci wal kafay ni lu dul xarkanamam ñaari tënkam mën nañu wax ne awra la di nga gis nag ñoo xam ne danañu forcer jigéen ba kanam ga sax dañ cey muuraat dara wala jigéen ji moom mooy ëppalal boppam kanam ga sax kenn dootu ko gis day ut beneen malaan teg ca kanamam dem ba day sol ay gants dem ba day sol ay kawaas ëppal la kuy waaraate di wax lii jigéen ñi yaa ngay jëfel jëfel gu ëpp kuy dem di araamal lu nekk ba wax ne lu feeñ ci jamono ci teraangay doomu aadama sax araam na lu mel ni télévision nga ne seetaan ko araam na lekkee kudd sax araam na bu oto bu rafet sax ñu ne lii gëm àddina la ma ne day dem ba jëfel googa nag mën naa tax nit daw diina yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na di leen yombal te bu leen jëfel diina dafa fekkoon nit ñi ci ay melokaan yu bon mu leen cay génne di leen indi ci yu baax ndànk ndànk ndànk ba ñëpp bëggee ci diina xam ne lu baax laa ngi kon bu leen jëfeel waxuñ nag nga bëgg lu neex nit ki ba yombalal ko la nga xam ne moo doon farata ba teggil ko ko far la doon sunna nga yombalal ko ba teggil ko ko déedéet yey farata ya waxee ko ca noona yey sunna ya waxee ko ca noona bégal leen itam képp ku tegu ci yoonu njub jëfee la yàlla gërëm la yàlla digee ca ku def lu baax la ko cay xaar ci ay xiwalu àddina ak àllaaxira ndax ku def lu baax war naa am mbégleeg yàlla ndax yàlla dafa yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk mubashiran wa nadiran muy bégal képp ku yeyoo ñu bégal ko te mooy ko tegu ci siraatal mustaqim la ko yàlla dig ca loola ci jëf yu baax xiwal yu neex ci àddina ak alaxira ku nekk ca lu baax la nga bëgg ko xuppee nag foo toll jaana mangoogu ay jaan ya fa nekk ki ay ñangoor ya fa nekk ki ay ay lu tiis lu nekk nga xuppee ko ko te mu nekk ci lu baax dëppawul kon ka nekk ca lu baax bégalee ko àjjana ak xiwal ya ca nekk ka nekk ca lu bon nag xuppee ko la nga xam ne moo ko cay xaar ci ay mbugal yu yàlla tëkkoo kooko ci àddina ba alaxiram loolu xam nañ ko waaye safaane ka yeyoo bégle nga xupp ko ka yeyoo xupp nga bégal ko loola moo dul mbir yi kon yeneen si ñam daan yebal ñuy dem di ko wuuti ca gox ya di juble daan na leen wax ne yombal leen bu leen jafeel bégle leen bu leen dàqee bu leen dàq nit ñi ci diina ji kon kenn ku mu nekk nag ci ñun ñëpp nañ jàpp ne ñoo wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ña nga xam ne ñoo ngi toog ak ñoom di waxee ak ñoom ci jamono bu nekk ñeetal sunu dégg nag loolu la anas jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cheikhaani nettali ko ba tey an abi wailin an abi wailin qaala kaana abdullahi yudakkiru nnaasa fi kulli xamisin fa qaala lahu rajulun يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا رواه الشيخاني والترمذي حديثا بتي abi wailin moo ko jëlee moo ko solo di wax ne abdullahi ibnu mas'ud daan na waar nit ñi bésub alxames bu nekk mu dajale leen di leen waar ba benn bés nag am benn waay bu ko wax ne ko yow ab yow aba abdurahman moom amoon na doom di tudd abdurahman daan nañ dàkkantale ci arab bi nag koo xam ne doomam nangam la tudd ñu ne bàyyu nangam bàyyu diw ni ñuy waxee itam diw doomu diw kon bu ñu waxee aba abdurahman ba tey mooy abdullah ibni mas'ud ba tey mu ne waaye wax na ko ne ko waaye wax na ko ne ko doon nañu bëgg daal waaraate bi nga ñuy jagleel alxames bu nekk benn yoon doon nañ bëgg boo ñu ko mënoon defal bés bu nekk rek nga di ñu waar daal moo ñu gënal mu ne leen jëlee nañ ci abi wa'il mu wax ne abdurahman ibnu mas'ud daan na waaraate alxames bu nekk benn góor ne ko waaraate wi daal neex nañu waaw ndax doo ñu ko mën a defal alxames bu nekk bis bu nekk nga waar ñu mu ne ko li ma tere may def lu mel noonu mooy dama leen bañ a yokkat loo dama leen bañ a sonnal bis bu nekk ma di leen waar rek mun na am coono mën na ca jóge nekkal leen ba dootu leen bëgg sax ku leen waar ndaxte dama gis ne yonente sallallahu alayhi wa sallam lim baaxoo woon daan ñu ko defal mooy waaraate wa daf ñu ko daan def léeg-léegi ci jamono ndax rek ragal di ñu yokkatloo loolu mooy xadis bi ngeen déggee ci lu bare bare bari nag nit ki ci biir nit ñi léeg-léeg ak ndoom aadamaam dina ko wammat mu defe loo xam ne liggéeyu àddinaam moo ko laaj déggoon ngeen ci benn xadis yonente sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ñun dañuy woor di dog dañuy julli dinaa fa lekk nelaw dañuy sëyëg jigéen ñi ku xemem lu dul lii bokkuloo ci ñun du jàngoon nañ ko kon nit ki ci biir nit ñi am na wàllug nitam na ko matal wàllug jaamu yàlla nag bu ko dara yàq waaye bu mu def addinam lépp jaamu yàlla la ci jullee ki woor na nekk jaamu yàlla goo xam ne xëy na xol bi moo taxoog jaamu cër yi léeg-léeg mu jaamu léeg-léegi leneen la nga xam ne ci wàllu àddina la cër ya féetewoo ko bu xol ba leeree nag ci leeraayu ngëm gu mat bu nekkee ci liggéeyu àddina yi jaamu yàlla la loola gën a mat nag ñu déggee ci ne daal nit ki war naa yittewoo ñaari wàllam yépp waaraate yi baax na waaye def ko léeg-léeg ba yëg na nit ki jaxasoo waat na ak àddina soxla waat na ñu tooyalaat xolam ci waaraate mu dellu si waat ñu waaraat ko mu delluwaat ci mbirum àddina dundaat lañ ko waaroon moo gën a mat taqoog waaraate rek qaala anasun innahu la yamnauni an uhaddisakum hadisan kasiran anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala man taammada alayya kasiban falyatabawa maqaadahu min annaari rawahu al arbaatu jëlee nañ ba tey ci anas mu wax ni li tax ba jamono bu nekk du ma nekk di leen waxtaanal di leen indil ay hadis yu bari lool mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku tey fenal ma na waajal barabam xam ne am na dugguwaay boo xam ne fokk moom dina ko dugg safara ku ma fenal te tey ko na waajal boppam xam ne dana dugg safara lii la wax kon lu ngeen déggee ci wax ji anas ku bari lum jëlee la ci yonent bi ay waxtaan waaye bari foo toll di wax foo toll di wax du ñàkk ci biir wax yi di nga ci dugal loo xam ne bokkul ci ndax fenkat yi li leen gën di fenloo mooy dañuy wax ba seen wax jeex te duñ noppi kuy wax sa wax jeex te noo noppi bu yàggee nga jàll wax loo xam ne bokkul ci fu ngeen déggee fenkat ñaare rek ku jeexal la mu war a wax la te noppiwul wala bëgg na fu wax amulee itam mu jéem a wax rek bu yàggee fenn ciy dugg mu ne li tax du ma toog fu ma nekk rek di leen wax yonent nee na yonent nee na damay bañ dugal ci lu ca bokkul te yonent sa wax ne ku ko fenal te tayyi ko na xam ne am na place ci safara wali muslimin inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahadin faman kazaba alayya mutaamidan falyatabawa maq'adahu min annaari beneen xadis muslim moo ko soloo nee na fenal ma man yonent bi bokkul ak fenal ku dul man képp ku ma fenal te tayi ko na waajal boppam xam ne am na wàccuwaay ci safara moog bali sorewul waxin bii muslim moo ko solo bale itam arbaa ñoo ko solo fenal yonent bi bokkul ak fenal ku dul yonent bi ndax boo ne yonent nee na rek képp ku la gëm jàpp na ne la nga wax yonent ko wax kon fenal keneen keneen kooka mun naam kenn sax yitteewul waxam ba boo waxee fenal ko fa nga ko waxee mun naam fa la jeexee kon bokk la fenal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam an abdillah ibni amrin wa an nabiyi sallallahu an an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأدلوا رواه الشيخان والترمذي عبد الله بن عمرو جلنا ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni yàlla bu bëggee jël xam-xam ci nit ñi duut lu muy rocc ci dënnu nit ñi du xam-xam ba mu joxoon nit ñi lay rocce ci seen i dënn déedéet li muy def kay mooy day jël borom xam-xam yi benn ci benn ba borom xam-xam yi jeex ku xam dootu fi def nit ñi nag bu boobaa it danañ soxla borom xam-xam bu leen jiite ci seen mbir bu ñu waree gisuñ kenn ku xam mën koo jiital ñu jël nag ñu réer ñu jiital leen ñi leen di laaj ñuy tontu ci lu dul xam-xam réer nañ ñu ngay réeral jamono dina joti nag loolu am yàlla rocc xam-xam ci jamono xam-xam dootu fi def alxuraan sax téere bi dina fi nekk këyit yi nekk fii mbindam alxuraan feeñ ci kawam waaye mbuutam alxuraan yàlla yëkkati na ko yóbbe na ko xam-xam dootu fi def ñay jiite ñëpp ñu réer la ñuy doon kenn dootu ci waxe ci xam-xam kuñ ci laaj nga jéem a tontu te la ngay wax du xam-xam kooku réer na mu ngay réerale bu ngeen seetee ci jamono nag bari na fi lool te jamono ngi ñëw dina gën a bari ndax yàlla la soobee muy doxalee noonu mbir yi mujjug jamono loolay doon melokaanu ñi mujj ci jamono daraja ji ñu bare koy wutee ci diina kaalawu yaag colin yaag buñ ko wutee ci àddina ba lot ci amuñ ko rek ñu wuti ko ca diina ku leen gisee nitu diina ci jëmm jaag ci colin ya nga laaj leen ñu jéem a tontu ndax mottali koo ko daraja fekk ñu réer lañu ñuy réeral lañu rawahu shaykhani wa tirmidhi عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أثار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه رواه أبو داود وابن ماجه حديثا أبي هريرة رضي الله عنه موقع صلى صلى الله عليه وسلم منه képp koo xam ne kii dafa tontu ci wàllu xam-xam ci lu dul mu xam bàkkaarub tontu booba nekk na ca ka tontu mooy lan képp ku jéem a wax ne yonent nee na ci ku la laaj lan mooy àttee mbir tàngam nga tontu ci mbir ma loo xam ne dëppawul ak na ko yonent waxee woon la wax ne bàkkaarab loola mu ngay nekk ca ka wax wax ja kañ wax ne yow nii la nii la nii la mu jëfee noona bakkaar ba mu ca am ci ñàkk jëfee lay njub te ko wax ne ko noona moomu bakkaar ba képp koo xam ne itam mbokkam julitam diisu na ko ci mbir laaj ko lan mooy solo mbir mii moom xam na ne lii de xamu ca dara waaye mu jéem a tontu loo xam ne dëppoowul ak lay njub ga ba kooko dem jëfee lu dul njub ga nee na kooko wuruj na mbokkam ma ko laaj lépp lu mu jëfee ca loola itam bakkaar ba moom lay nekkalaat kon kuy wax na nga wax ci xam-xam ku xamul na nga noppi képp ku jéem a jubbanti nit tegtal ko mbir mu jëfee ko te dëppawul ak lay xam-xam bakkaar ba lépp kooku lay nekkal te it na xam ne wuruj na ko nag عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال rawahu abu dawud wa ahmad hadis a ngi ba tey awf ibni malik moo ko solo jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam yonente nee na ki war a waxtaan ak nit ñi daal di leen waar ab buur la war a doon wala ministre ab buur bi mooy que buur nangul ne borom xam-xam la ba jox ko lu ko may mu mën a taxaw ca kanam li ñu wax ku dul ñoom bu waxee mun na am la muy wax du njub loola buñ ko bëggee dëkkaleeg suñ jamono bii duñ wax buur bi lu ñuy wax dañ naan sëriñ bi ka nga xam ne moom lañ xamee ay baayam ak maamam dañ jàngoon jàngal ko mu xam kookaa war a waaraate wala taalibeeb kooka ba nga xam ne moom itam jaar na ci sëriñ ba ba xam la sëriñ ba xam loolu la ñu mën a àttewoo ne kooka moo mën a waaraate ku dul moom nag mooy ku jàngul ka dara jaxasoowul ak ñu jàng xam jëfee seen xam-xam kooku bu bëggee waaraate ci lan la koy teg kon dañ koy déggee ci déggin boobu réew yëpp buur nekk buur ba di borom xam-xam jullit ña jiital ko bu waxee xam-xam lay waxee kam yebal ci gox yi ne ko féetewul waar ak waar ñooñu ci diina kooku it ku buur nangul xam-xam la borom xam-xam lay doon sun réew yi kon luñ mën a wax mooy lii ma wax rek ka juddu ci diina yaru ci diina ñu jàngal ko diina bu waxee mën na waxee ci xam-xam comme yar itam ca noona noonu ku dul ñooña nag mën na am bu waxee ci réer rek lay wax ndax jàngul ko àndul ak ñu jàng عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوه بهم خيرا رواه الترمذي وابن ماجه jëlee nañ ci abi haruna al abdi yi mooy dàkkantalam mu ne nekkoon nañ di ñëwal aba saidin bu ñëwee ci aba said borom xam-xam la woon lu ñuy wax marhaban marhaban bu ko arab waxee mooy yegsil maa ngi lay tatagal sama barab wàccuwaay bi yaatu na ci yow am nga place daal sama jotaay yegsil yegsil maa ngi lay tatagal yegsi leen ci ndénkaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kon nit ñi buñ daan ñëw di ko fekk ci daf leen daan tatagal bu baax te xam ne li tax nit ñi di ko ñëwal mooy moom jëlee na ci yonent bi xam-xam buñ ko ñëwalee mu mën a jox nit ñi xam-xam ba lu mu leen daan wax nag mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam daan nañu wax ñun waa Medinatu Munawwara ne am na ay nit jamono bu nekk mi ngi soxlawoo di ñëw Medinatu Munawwara ngir yéen waa Medinatu Munawwara ngeen xamal leen ci xam-xam bi ngeen jëlee ci yonent bi jamono yu leen nit ñi ñëwalee ngir bëgg a am xam-xamu diina xamal leen leen dénkante leen ak ñoom ci lépp luy njub lépp luy lu baax fastaw su bihim xayran kon mun ngaa wax ne wa tawaaso bil xaq ba surata asri di jàngale la leen yonent wax yéen waa médis mun na war a mel leen ko ndax nit ñi dañuy jog di teewoo xam-xam di dem fañ ko yaakaar yéen borom xam-xam yi yéen waa médis mun na war a yéen ñi may jàngale ci seen biir liy njub ak yàlla gi ku ñëw rek jubal leen ko wax leen ak moom lay xam-xam lii la yonent ci jàngale kon nit nañ ci am ak dégg bu yaatu roy waa medina ci boobu melokaan عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة rawahu abu dawud lii benn wàll la buy wax ne bunt la mu ne far'un yalzamu an yakuna yalzim an yakuna al ilmu lillahi taala xam-xam daal yàlla rek lañ ko war a jagleel abi hurayrata nag wax ni yonente sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp kuy ut xam-xam te wutul xam-xam ba lu dul yàlla utul xam-xam ba te yàlla tax ndax lum ci jublu rek mooy am ami àddina rek li ci jublu daraja la jublu boo xam ne daf koy am ci àddina ngir rek benn titre la boo xam ne daf ko bëgg amee ci xam-xam bu muy wuti yonent nee na kooka katub àjjana du ko ñëwal mukk maanaam du dugg àjjana kuy sàkku xam-xam te dara taxul lu àddina rek kooka du dugg àjjana àddina àjjana sax du ko xëy lii la yonent wax sallallahu alayhi wa sallam lu ngeen ciy déggee rek lépp lu ngeen di wax lépp lu ngeen di def lu ngeen di yutoo xam mbaa am ko def leen ko te yàlla tax lépp loo def te yàlla tax rek loolu yàlla gërëm na yàllaa ko moom ndax jëf yi lu mu bari bari bari lépp yàllaa ko moom waaye yàlla gërëmul ca lu dul lañ tuddee yàlla loo tuddee yàlla rek yàlla bëgg na yàlla gërëm na dana la ca fay loo def nag tuddee woo yàlla yàllaa ko moom tax de waaye nag lor rek ak coono bu dul jeex lay doon ca borom kon bu ñuy ut xam-xam nañu ut xam-xam te yàlla tax daje woo nañu alarbaa ngi ñoo ngi jàng ku jógee sa kër di ñëw na nga dem ndax maa ngi déglu ji loo xam ne maa ngi xamee ji foofa njàng nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma xam jub ba mën a juble ñi nga xam ne ñoom ñëpp danañ ma jublu ci bés laaj ma wala danaa mën a jëfe ñu roy ma ci jëf je ma jubal leen ci ku yéenee loolu jamono bu nekk yaa nga ci njubug lay xam-xam عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار جلينا بتيتي عمر مجلت ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخنه كيف كو اد خم خم te yalla taxul na xam ne wàccuwaayam mu ngi koy xaar te naa te safara ku ut xam-xam te yàlla taxul ut xam-xam te yàlla taxul bari na lu muy am lool mooy xadis bee ñu waxoon rek lépp lu ñuy def rek ne yàlla tax عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي وابن ماجه jëlee nañ ci kaab doomi malik mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne képp kuy ut xam-xam te jubluwoo ca xam-xam ba ludul am loo mën a daggiwanteeg borom xam-xam yi foo toll di feeñal ne yaay borom xam-xam ci seen kanam buñ waxee lii nga wax lee jubluwoo ci ludul werante rek ak ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi wala jubluwoo ca ludul bëgg nit ñi jublu la rek bëgg la ngir ne yow yaa am xam-xam nee na képp kuy wut xam-xam ngir lii yàlla dina ko dugal safara rawahuma tirmidi wa ibnu majah kon nañ seetaat suñu bopp doomu aadama bakkanam daf ko jege lool la muy def jublu ci ngir mu feeñ rek day bari waaye fu la sa bakkan bëggee xiir ci loo xam ne jubluwul lu dul nga feeñ rek fexeel xeex ak bakkan ba yow def la ngay def te yàlla tax boo notee sa bakkan ci looy def yàlla tax rek yàlla dina la jox te bu la yàlla joxee dina la barkeelal xam-xam ba dina la jëriñ bakkan noonu la ci borom moo gën a jege nit ki ci lépp lu ñu naan seytaane la seytaane dina am ci jinne yi dina am ci nit ñi waaye seytaane bi gën a jege nit ki mooy bakkanam nañu xeex ak bakkan yi ba lépp luy sunu wax ak luy sunu jëf na yàlla tax buñ gis nit ñi nit ñi nekkuñ ci boo bëggee nekk ci njub jàppale nit ñi ñëpp dee nañu ba jullee nga leen sul nga leen yow rek yaa ko def kon dootoo gis kenn bay jëflanteeg moom ndax moom doo fi gis kenn yàlla rek ngay janoon ku bëgg a sellal nag nii ngay mel te sellal nag mooy mbootam diina ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al ixlaasu sirrun min sirri istawdatuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yatlau alayhi malakun fa yaktubuhu wala seytaanun fa yufsiduhu sellal nee na mbóot la ci samay mbóot maa koy dugal ci xolub jaam boo xam ne man yàlla bëgg naa ko sey malaaka munu faa yegg yàq di bind fiyaa bopp kooka ndax ëpp na malaaka xam ko man maa ko yaral sama bopp man yàlla seytaan it munu faa yegg ba yàqal bu bu jaam kon sellal mooy mbóotum mbir yi ni ñu ut ak sellal ci lépp luy ñuy wax ak lépp lu ñuy jëf jëfikat mën naa bari yéefar baa nga yëngatu jullit baa nga yëngatu mu'min baak muhsin ba ñëpp a nga yëngatu waaye ka ca sellal rek la yàlla faale mbiram kon nañu xam ne sellal mënul am fekk ñoo ngi jël suñu bakkan di ko jéem a darajaal buñ gis nit ñi bay def ngir nit ñi nañ def te yàlla tax ku mel noonu rek am nga sellal mbootum xam-xam boobu mbootum yu baax yépp yàlla na ko def sa xol kon nañu jàngalante dëgg nañuy xeex ak bakkan ba yàlla des ci nekk fi duñ gis kenn ku dul yàlla lu ñuy def yàlla tax ci yàllaam bi alhamdulilah yal na yàlla xiir ci lim bëgg ak lim gërëm ci waxin ak jëfin ci mboolem jamono ak barab ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالأقرام إلى صراطك المستقيم وعلى آل أحمد الجبال العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى ليقصر مقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.